rahmatullah maa ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu Sénégal gi yëpp bàyyiwuñ kenn di nuyu waa Kaolack di sant mboolem kilifa diine yëpp ba ci cathédrale bàyyiwuñ kenn dinañ gërëm bu baax a baax tubaarkaal li taxoon tey nag ma woo leen euh, la boo di dama ko jël waaw waxtaan ceeg samay nit waxtaan ceeg sama njaboot euh, fas ko yéen a jël nag incha allah bu soobee yàlla te du ma ci dellu ginnaaw euh, muy ci wàllu àdduna yi nga xamante ci la ñuy yëngatu di politique waa xaw cee yàgg lool bi président Macky Sall toogee it deuxième tour àndoon nañu ak moom amoon lu ñu naqare ci PDS mais premier tour yi moom PDS lañu voteel deuxième tour yi bi ñu génnee dem voteel président Macky Sall waa léegi nag loo bokk loo loo yëngu nag dégg nga 2014 ak léegi te gisoo ci sa bopp presque huit ans wala neuf ans yaakaar naa war ngaa taxawaat taxawaat seetlu seetluwaat te vraiment lu ci cër bu ci nit mën a am rek yaakaar naa kenn gën ñu koy yelloo waaw loolu moom leer na ñëpp leer na sama njaboot it ci ne naqar nañ ko ci lu bare bare bare bare waaw muy euh, cër yoo xamante ni dañ ko war a joxe wala yëg-yëg boo xamante ni am na ci biir parti wala ci biir mouvement bi sax ci biir euh, alliance bi mu def muy benn bokk yaakaar euh, te gis ñu suñu bopp 2014 bi may dem ci président Macky Sall 2009 moo ko jiitu 2009 président ñëw na kër ga kere bi mu ñëwee recevoir naa ko xamal ko ne carrément Euh, sa doomi ndey euh, day sama xarit muy muy euh, président Souleymane Ndéné nekkoon premier ministre ñu waxtaan ci Kaffrine nag ma ne ko su nekkutoon loolu nag yàgg naa gën ay position depuis bi la PDS da nga di sonal di la fitnaal ak li nga daj ci parti boobu dama naa gën ay position ngir bañ nooteel waaw ngir bañ nooteel waaye taxutoon ma génn ci deuxième tour nag bi nga xamante ni am naa lu ma naqare ci biir parti bi dégg nga ci laa jëlee sama décision ne incha allahu rabi dégg nga xool damay votel deuxième tour Macky Sall booba yaakaar naa ministre Aliou Sow mii tey moom moo wutale audience boobu ci euh, président euh, Ablaye Wade euh, sama sens yi di madame Mbacke mama Anne ca la woon Pape Sène ca woon ñu bëree bëri da nga yóbbu yóbbaale woon naa leen keroog bi président waxee it président Ablaye Wade sëñ Mbacke Ndiaye mi ngi toog yaakaar naa mi ngi dégg li may wax ndax dina ko dégg incha allah. Euh, président Abdoulaye Wade boobu diggoon na ma vingt cinq millions ou trente millions sëriñ euh, monsieur le sëriñ Boub mi xam na ci dara waxoon dama la jox ñetti oto benn bi dama la koy may ñaari oto yi da dem campagne su ma gañee nga jël ñetti yëpp su kenn gañu mo na nga delloo ma ñaari da nga jël benn bi euh, falaa ko bàyyi parce que boobu am naa lu ma naqate gisuma woon ne dégg président Abdoulaye Wade dégg nga war naa toogaa ci réew mi ma dem ànd ak président Macky Sall jàppale ko dégg nga sans aucun intérêt nag bi mu jàllit ma toogaat tey war sama ba 2014 la ko Abdoulaye mun Niass da nga doxaat sama diggante moom da nga yóbbu ma euh, palais waaw kon euh, yaakaar naa mu ñuy ñuy waaj élection locale yooyu euh, bi ñuy waaj élection locale yi it da nga booba mu wax ne Mariama Sarr mooy candidat am ne man na ko jàpp na ko naa ko jàppale bi ma ñëwee ma ànd ak Mariama Sarr ci deuxième tour yi bi ma jàppalee Abdoulaye Wade bi ma jàppalee président Macky Sall waa PDS dañoo nangu oto bañ ma joxoon ma toog ñaari fan yoo xam waaw di ñaanal suñu Massamba Fall yàlla yàlla yokk leen taas ñu ci barkeem moo jëloon benn 4-4 dégg nga 4-4 euh, double cabine-am dégg jox ma ko addi suñu Tuubaa 4-4 boobu laa yor ba ni may demee élection de 2012 2014 ba ni may demee élection de euh, locale euh, ma ànd ak Mariama nga jël sama oto taf ci ay photo Mariama moom campagne waaw lu leer doomu aadama yëpp Abdoulaye Mountakha Niass diggoon na sama benn taalibe Coumba Ndiaye Diouf dégg nga benn artiste la woon nekkoon fii Kaolack ñëpp xam nañu ko yàlla na ko yàlla yërëm diggoon na ko biyee Màkka bi ñu demee ba nga xamante ne nii da nga def nañ élection yi ba ñu ne da nga moo gagné benn bokk yaakaar moo gagné eh, Ablaye Mountakha moom waxoon na dafa bëgg nekk maire keroog man ma def sama sama déclaration te ci rajo eh, ci presse bi eh, billet boobu na la ku ma jaay juf ñàkkee waaw kon li ma li ma muy ñaar ñàkk naaj ci sama oto ku ma jaay moom ci waroon am waroon am billet màkk da nga ñàkk na ko ci. bi ñu demee ak Mariama Sarr Mariama Sarr gagné mm, Thierno Diallo ca la woon. Baye Modou Thine mi ci woon Mama Anne madame Mbacke ci woon euh, Pathé Sall ci woon dégg nga bi loolu amee euh, yaakaar naa ne dégg nga kenn amu gis euh, gis ci woon sa bopp ba un ñu waxtaan ci mën na ko gàtt bi de dañu war a gis suñu bopp ci la jëlee madame Mbacke bi ñu def ko chargé de mission bi waa mi amee tuuti coow ak bay Modou Thine mi mm, ma far dégg nga at at ci dëgg ngir bañ noteel jàpp ma ne Baye Modou sama. taalibe rek wala sama àndandoo la dégg nga tax dégg nga maa ma faral ko waaye dama ko faral ci dégg boobu dañ ko tooñ moom it waaw ngir demaat ba kenn du ko toroxal demaat ba bi loolu amee dégg nga ci la jël maman an mi def ko chargé mission bi problème yooyu amee dégg nga ma ne maman an dégg lii ji lay fay xaalis colloque la te doo xëy doo doo gont te naa ne dégg nga sooy xëy di lekk xaalis colloque war nga am moom xëy comme amoo xëy na dégg nga da ngay arrêté keroog maman an bi muy yóbbu lettre dégg nga de démission am bi mu eggee lañ ko jox beneen lettre boo xamante ni dañoo bëgg dañu xool euh, muy xëy si waaw ma xam ne kon da nga sant yàlla ba waa léegi da nga ñu continuer waaw boobu mooy ci Mariama Sarr da nga beneen bi ci mun jaarax ma kenn ku ne xam na sama ànd ak moom loyauté bi nga xamante ne am nañ ko ak seqal ñu ko maam moom de 2015 ak léegi ñu ànd ànd bu rafet wala boog man la ma ci waa def naa ko euh, ànd boo xamante ni yàlla rek tax danga yaakaar naa ne euh, kër Sëriñ Tuubaa kër kilifa diine la kenn ku nekk ci opposition parti boo mën nekk mouvement boo mën da nekk rek ci sama yaakaar da am na taal bi suñu tuwaay yu nekk waaye kenn mës a gis dégg nga diir bu ma dugg affaire léegi benn opposition ñëw fi da nga ma lay accueillir mës a am waaw du président Sonko du Idrissa Seck mi ànd ak ñoom tey du keneen nag euh, du keneen nag keneen euh, loolu yëpp nag da nga bëgg ànd ak mën a ànd da nga euh, moo tax waaw ànd woo yaakaar naa loolu ñëpp yëg nañ ko su dee Pape Demba Bitèye mii it keroog bi muy ñëw sama kër dégg nga boobu secrétaire permanent la woon dégg nga Senelec keroog bi ñuy dem ko sëñ Mountakha Bassirou di ko seeti Porokhane je sekk ci la woon ak moom ñi mu àndaloon ñëpp ñu dem Porokhane ma dénk ko sëñ Mountakha sëñ Mountakha ñaana ko ne ko dinaa la jàpp ngir Babacar Mbacke mii muy bi ci njëkk euh, yàlla dogaloon dimanche altine traité sëñ Sidi Mokhtar dégg nga ñibbi àjjana sëñ Mountakha toog jotaayu sëriñ Tuubaa bii ñu def euh, mu ñëw jaar si maa ko yóbbu mu dem jaar si sëñ Mountakha weer ñaari weer mu am ma ànd ak moom ba ci Serigne ñaan ko dégg nga xoolal pour président Macky Sall dégg nga def ko euh, directeur général euh, Sénélec loolu am na seere am nay seere euh, Gaspard Seck ca ànd ba la ma mama an mi ca ànd ba woon biñ doon wax Serigne Mountakha Serigne Mountakha boole ñu Serigne Bass Abdou Khadre bi ñu boole Serigne Bass Abdou Khadre kenn ba ñu dem fa la ñu fekk Bougane Gueye waaw biñ demee ànd ak Serigne Bass Abdou Khadre wax ko ko ba yàlla def ko lii mu ko def danaka sama diggante moom da nga ci la commencé da nga di gëj te man damay wax toujours ne loolu ma defal ci àdduna te yëgoo ma da nga defal ma dara li a xam na dama àdduna bu ma ma la jox ak ma ji ma la jox loolu moom du tàgg waaye maa ngi ci sant baax ci yëg ak yitte joo xamante am naa ko ne koo gis jox ko cër da ngay bëgg moom laa ànd woon ak Modou Ndiaye lu ma defal lu ma jowal lu ma defal lu ko jar loo xamante ne nii dañaan lii Modou Ndiaye moo ko defal Babacar Mbacke da lu ñu mën teg baaraam waaw Pape Demba ñu ànd ci noonu euh, li ma bëggoon ci moom it da xëy na amee ma ko na ma ko bëggee waaye wax naa ko bu yàgg bu mu fi ñëw fii ci Senelec bi mu fi ñëwee fii ci délégation Senelec bi di sees yi da nga cité euh, religieux yi ne sotti am borom waaye keroog moo ko yóbbu suñu taxaa c'était un peu difficile da nga ci ci booram ànd ak moom dem ci sëñ Bass Abdou Khadre da nga ñaan ba yàlla may ko lii Ah, booba da nga laa gis sama diggante moom lu ci bëree bëri wàññeeku na waaye loolu ñu ci sant yàlla bu baax baax suñu yaakaar ak suñu dund dégg nga nekkul seen loxo eh, président Macky depuis 2017 la ko waxoon fii ci salle boobu nekk ci biir kër Sëñ Bassirou ne mboolem kilifa diine yi nga xamante dañu ànd ak man ci xale yi di politique yow dong laa jox ko cër te dinaa jox cër boobu suñu saaxa moo président moo moo fa nekkoon moo ko ak yi doon dégg ak mboolem taalibe Sëñ Tuubaa nekkoon Tuubaa Ndoro yëpp dégg nga doon ko teetu loolu la woon bi 2017 boobu jàllee novembre novembre bii passé ça fait presque dégg nga onze mois suuf ci ci bi ñu nekk nii moo ko waxaat ne danaa la danaa la jox sa cër danaa la jox danaa la cërale dara euh, bi mu ko waxee euh, madame la ministre Mariama Sarr daal ne ko euh, ten nga ko dugal ci conseil économique social dégg nga bamtu ko ñaari yoon ñetti yoon président Macky ne ko du maa ko waxal sax kenn waxuma ko dégg nga danaa ko def te bu baax léegi dégg nga ça fait onze mois xam nga nit moom loo oyof oyof rek. dégg nga duñ la wax ne toogal fii waa yow nag mën nga am sa oyof bopp toog ci suuf wala nga ñëw toog ci fasan gi dégg waaye euh, li war dégg nga loolu nekk rek dégg la ñu jox war ma a jox d'accord élection locale ñëw na am na ñeneen ñoo xam te ñoom a gën a yittewoo fas yooyu yëpp mais rafetoon na ci ñoom du Pape Demba du Modou Ndiaye ma koo xamante ni laaj nga ma ba xam ndax bëgg naa ci dugg wala bëgguma ci dugg Lamp Mbacke mu suñu ci asfaal man woon dégg nga opposition indi ko boole ko Modou loolu yaakaar na leen doomu aadama yëpp bi mu ñëwee li mu waxoon waxutoon day ñëw APR dafa waxoon ne dinaa ñëw nga jàppale APR jàppale benn euh, jàppale benn bokk yaakaar euh, ci élection locale yi ñu nekk dégg nga ngir Mourou Diarama euh, bi ñuy investir dix-neuvième position ko yóbbu ci koo xam ne kay sët Sëñ Tuubaa la ñu wax ne dégg nga maam mooy cëru kon Kaolack mooy cëru Tuubaa Kaolack dégg nga ci mairie Kaolack nga yóbbu ko dix-neuvième position waaw xam ne kii suñu Basiru mi sañ ci dëkk bi moo jur baayam benn loolu dañuy xool ba xam rafet na wala rafetul te man ba léegi laa kenn laaj moo tax daa dugg du ma maman mii nekkoon na eh, responsable des femmes bu Pape Demba Bitèye bi muy bàyyi it ñàkk yi ak ñàkk considération dëgg eh, moo ko ci jëlee bi ñu koy dugal bi bi ñu koy investir yaakaar naa quarante neuvième position wala ah waaw trente neuvième eh, position la ñu ko dugal muy ñaari cër yooyu xam ne nekkoon Touba Kaolack ak Matar Diagne Matar Diagne yaakaar naa àggoon ci vingt cinq xaw ma trente trente huit waaw kon loolu mooy da nga xoolal maam ñoom li ñu cëralee Touba Kaolack li ma fas yéene nag du ma wax ne bàyyi naa politique du ma wax ne bàyyi na président Macky Sall waaw ba léegi sama yéene ak sa mi ci moom te sama bëgg-bëgg mi moom incha allah dinaa ko di ko jàppale waaye jàppale bi nag man dong lay doon waaw bàyyi naa sama bépp doom fu ko neex mun naa dem bàyyi naa képp koo xamante ni da nga da nga damaa dox sa diggante sa sëñ Tuubaa wala nga am cofeel ci ma wala ñu daa ànd nga xamante ni maa la téye woon fii ci parti bi fu mën ngaa dem waaye incha allah su fekkente ne conseil constitutionnel décidé na décidé na président Macky Sall mën naa dem mën naa dem élection 2024 man dinaa voté mais sama dong laay voté du dem campagne dégg ndaxte ñi fi nekk da nga joltuñ ma ko waaw te loolu moom dama koy wax dégg nga ca kaw a kaw relation yi nga xamante ne dama ko séqee ñoom loolu ci diggante nit ak nit dégg nga loolu moom maa ngi koy maintenir ba léegi ko ci téyewut da nga ma ma la nga dem ma dem nga dem kon loolu amu ci benn problème loolu la woon waaw léegi nag euh, fas naa yéene généralement bépp activité politique dégg incha ci kàttanu yàlla waaw may waxaati ne di waxaat Pape Demba ne ko ni mu def Medina ba coof su ma juumu yaakaar diggante quatre cent ou sept cent kër yoo xamante ne da leen a may dégg nga ay euh, courant woyofal yoo xamante ni duñ fay un an dégg nga loolu euh, maa ngi koy wax ne ko euh, dëgg la taalib Medina la man mii surtout maam Baye laa ku jox danga cër dégg dëkk boobu laa ko jox cër ak worma dégg nga kër googu laa te ku ma xam ku nekk la xam na loolu laa gëm lu laay dund du ma wax lu ma gëm ci àdduna munu maa fonk sëñ Muntaxa ne du ma fonk sëñ Maay munu maa fonk sëñ Muntaxa ne du fonk dégg nga euh, sëñ Cheikh waaye maa koy wax ne dégg nga DG wu seen legu dégg nga mboolem kër dina yëpp la DG wu seen leg la boo xamante ni dégg nga mboolem quartier yëpp la dégg nga na bàyyi war xel Touba Kaolack maa ngi ko ñuy soññ di ko ci bàyyiloo xel dégg nga loolu na ci wax duñ ko xas duñ ko xarab duñ ko ŋaañi euh, Kaolack amoon na ci moom yaakaar loolu waaye yitte dafa baax may wax ne du jël téléphone doo ko woo ba jot ko dégg nga te souvent ay naxee da nga daf bokk ci da nga seen i yitte waaw loolu maa ngi maa ngi koy wax bi mu ñëwee Penjul wax naa ko ne ko soo demee diggante Medina ba euh, lew nañu seen da nga foofu yëpp da nga ay poto la euh, ay poto ñoo fa nekk dégg ba mu des Touba yi nga euh, ko bàyyi woon te mu ñëwee nee naa ko sëñ Basiru mi ngi faatu en 1966 la waaw kon kooku yaakaar daan de da nga lu mu fi bàyyi woon rek war na am changement waaw loolu ma ma maa ngi ko ci soñ bu baax manque de considération bi nga xam ne dañu jox Touba Kaolack loolu laa daan jotee ak waa kër te loolu laay a gérer sama bépp activité avant 2012 ak kenn xamutoon Mariama Sarr avant 2012 kenn xamutoon dégg nga Pape Demba Biteye avant 2012 kenn te ñoom ñëpp dégg nga kenn ku ci nekk dégg nga fii nga dëkk def fi li def euh, euh, sa njaboot nekk fi waaw kon nag li leen Macky Sall jox ni ñu ko dalawaat ci askan wi loolu mooy li réclamer waaw bàyyi mu avocat bàyyi mu ñoom ñëpp la laabale boo leen responsable politique da nga euh, euh, bàyyi mu leen Serigne Nafissatou Diop ko diggante Idrissa Seck da nga moom ñëpp ko picc sax euh, xëy na bi nga xamante ni moom moom moom la ko nit ñi foog damay wut noona ci politique waaye ñi may wax nag si que ñun ne ci suuf da nga di leen jàppale di taxawu ñoom suñu yéegee ci kaw di nga xoole war nañu bàyyi xel manque de considération boobu moo nekk sama diggante ñoom te moo nekk sa xam moo ci kaw lu waay yëpp nag waaw euh, li war a daal mooy nag nax gi ñu nax Macky Sall dégg nga li ma ci bëgg a yokkaat muy mboolem yi ma fi tudd kenn ku ne maa si retour bëgguma benn militant di ma tontu bañu ma ko nag dégg nga parce que damay taxaw di nga nekk responsable responsable politique am lu ma naqari dégg nga di ko dénoncé dégg nga di ko leeral président Macky Sall encore euh, loolu dama bëgg mu leer waaye li bëgg na ñoom ñi ma tudd képp koo xam ne wedd nga lii ma wala nga am beneen réplique dégg nga may naa la une si ngeen di tey tey lundi lundi prochain maa ngi di xaar su ñëwul lundi lundi prochain nag ku ma tontu wut mardi mercredi dégg nga danaa waxaat di nga yéen wax waaw parce que di nga xool dafa am loo xamante ni ñàkk war ma la waaw te dama koy dama koy mu leer euh, mun Ndiaye mënut a dem di wut di wuti ñu dem kër si mu nga si yàlla ji ko màggal xam nga man dafa am loo xam ne dama naan mooy barkewul lii cadeau la te mbubb mi maa ngi ko door a sol su fekkee solo gu ma ko nga ñëw may la ko loolu dama la jox cadeau barke nag dafa takk ci yaram dégg nga am na responsable Pape Demba bi dee dem na ko si mu taxaa jox ko mbubb bu bees jox ko mbaxana jox ko daal la mais yu bees solo ko loolu cadeau la pour man cadeau la dégg nga bi ñu bi ñu demee ci mundial man maa wax suñu muntaxaan ne ko dama bëgg mbubb moo sol ci sa yaram nga jox ko barkeeloo ko Cheikh Khadim yaa ngi dégg li ma lay wax. dégg nga sëñ Muntaxa suñ boobu moom ne ma ko da bu dugg ci biir bi mu yeewee mun jaay mun jaay di continuer ma ma ko ne ko maa ngi ci kaw ma ne ba léegi keroog bi muy defal jigéen ñi formation woon ñoo a def bi mu taxaw ko jox mu ne ma waa baax na biñu demee ci biir ma fàttali ko tontuwuma man nag bëgg naa suñu taxa bëgg boo xamante ni su ma sañoon sax ma ne moom a gënal yàlla bu moom ba léegi da nga xool jël ko léegi nag yow nooy wut nooy demee élection dégg nga ko te la suñu mën taxaa ba si jox la mbubu dégg nga woo ko jël nga woo ko sol jour bi ma lay wax nii dégg nga ne la ci la Moussa Diop doon ñëwee fii dégg te te te déggoo dégg jox ma am mbubu moo xamante ni lan moo wax dana ma doomi suñu blague moo ma ko jox te du ko weddi waaye comme du ma ko sol dégg nga ah, ah, ah, jëlal yow dama yaakaar nag ne Idrissa Seck waxoon na ko Idrissa Seck waxoon na ne biñ biñ ko laajee ne ko suñu mu jox man benn manteau dégg nga manteau boobu na nga woo ko sol nga jox ko euh, kii Macky Sall dana su donte am na wala amul Macky Sall tey dégg nga <laughs> te boobu Idé nekkoon kilifa gi tey ku ku kilifa mi Idrissa Seck du sénégalais tey du ko ci gouvernement bi waaw xam loolu baax waaw ku bëgg suñu tubaab daal bëgg naa di nga xool nga joxe suñu murid yi war ma waaw seekoñ dara nag diggante Mour Ndiaye ak Babacar Mbacke mais lii moom diggante intérêt politique la euh, dama cee ñàkk dama cee sonn wallaahi nga dama cee sonn waaw ñàkk ci sama oto